waaw di nuyu waa Sénégal gépp di nuyu waa Dakar Actu yëpp vraiment di kontaan ci teew bi nga teew nii. waaw li waral woote bi mooy sama album international bi nga xam ne vraiment euh, pare na war a génn ñu defar benn vidéo bu mag nag vidéo bu rafet boo xam ni macha allah ak beneen style musique boo xam ni yeneen façon vidéo yoo xam daawuñ gis Yves Niang euh, di def loolu. album bi pare vidéo bi pare ñu war ko lancé wan ko war ko wan àdduna loolu moo tax tey jii vraiment woote présenter vidéo bi. jox leen ko ngeen man koo mën ko wane ci àdduna bi xam nga bokk kook ñëpp loolu moo tax ma woote mais bu weesoo loolu nag yàlla dafa dogal monsieur le maire jox ma fii ñaari bureau bureau yoo xam ne pour que ñu def benn collectif boo xam ne pour artistes yi nekk ci banlieue yi bépp 16 communes d'arrondissement yi jot naa bureau yi macha allah xam nga commencé nañ ci waxtaan commencé naa woo artistes yi instrumentistes yi commencé naa leen woo woo naa groupe Jaguar yi nga xam ni mooy naar suñu mbokk Mauritanie yi nga xam ni peut-être fii lañ juddoo comprendre nga woo naa groupe bu yeelaay woo naa turu bu pël yi woo naa ñiy def reggae ñiy def mbalax ñiy def acoustique ñiy def afro bongo maan yi sabarkat yi xam nga képp kuy def musique rek instant bi nii ci collective bi nga bokk loolu nag vraiment moom lañ bëgg a wax àdduna bëgg ko lancé bëgg a xamal leen carrément album international pare na waaye collective bi taxaw na macha allah bureau yi taxaw na na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp dugal seen loxo waaw loolu nag boo koy def mënoo ko def ci ay groupe whatsapp wala ci ay téléphone il faut nga woo presse bi nga xam ne boo fa jàllalee sa message comprendre nga wax dëgg fa yàlla message bi dina jàll parce que ñun ay porteur de voix lañ te xam nga ni yéen moom macha allah yéen ak waa ñi fi jógee léegi nii gars yi ñi war a ñëw bari nañu waa grand théâtre jaar nañ fi léegi Dakar ak ci xam nga ni fi mu ne peut-être mën naa sax ñooy capitaine u gars yi ah album bi métti na trop parce que wax dëgg fa yàlla Africulture ñoo ko liggéey def ci ay façon son yoo xam ni métti na trop ay ay mélodie yoo xam ni métti woon na pour ma way ko vraiment ay ay but yoo xam ni pour ma teg fa sama voix ak Yves Niar dañ ko tàmm dañ ko tàmm dégg ak benn voix traditionnelle am xam nga mais ñu war a teg ay ay morceaux yoo xam ne war naa ci way métti woon na trop wax dëgg fa yàlla. album bi presque duré na un an ay musiciens yu mag tëgg nañ ci mais jël naa ci yeneen artistes yoo xam ne nit ñi xamuñu leen parce que Benga Baye Larab yaa ngi dégg benn gel bu ciy way ñi ñaa ngi naan tubaab la nit naan tubaab mais dañ bàyyi ba clip bi génn rek gars yi dinañ loolu moom surprise la quoi. dañu bëgg tey jii ñun sénégalais yi am nañ yeneen voix am nañ yeneen style comprendre nga. Euh, tey jii suñu musique war na mën a dem sur le plan international war nañ mën a bokk ci prix RFI yi ñu bokk ci concours bi xam nga war nañ ci mën a am disque d'or yi disque platine xam nga ma war nañ ci mën a am pourquoi pas suñuy musique di dem ci ci ci di concurrence ak yeneen musique yu africain yi concurrence ak yeneen musique européen yi te loolu tey ji peut-être amul Sénégal wala bu fekk amee bëriwu fii te ñun fi ñu dëkk muy banlieue loo wax ñu ni banlieue culture loo wax ñu ni banlieue waykat la comprends nga comme ñun yàlla dimbal na ma man am naa benn expérience bi am na dëkk yoo xam ne dem naa fa xam nga wax dëgg fa yàlla tey yaakaar naa ne suñu baat yi ñu yor war nañ ko mën a dugal ci yeneen musique yoo xam ne dinañ mën a bokk ci ñiy dundal musique Afrique loolu rek moo tax Yves Niang changé mais ci changement boobu nag ci laa bëgg nag invité nag sama nawle artistes yëpp nag ñu ñëw dugg ci loolu. Yves lépp lay def Yves boo ko wayloo seyd Seydina Mohamed léegi mu wayal la ko soo ko wayloo làmb mu wayal la ko boo ko wayloo kasak mu wayal la ko soo ko wayloo mbalax mu wayal la ko mais nag du tere nag ma liggéey beneen musique boo xam ne vraiment boobu moom moom laa gis ni moom mooy gën a fay que yeneen musique yi nga xam ñu ngi koy def. ñun li ñuy pénaliser moom bëri na parce que boo dee xool euh, depuis bi mbas mu duggee fi ba léegi nii comprendre nga. ñëpp a ngi liggéey mais artistes yi kese ñoo liggéeyul ñëpp ngi xëy di def au moins même booy tàkk sa masque sax dugg mais ñun artistes yi lañ wax ne yéen bu leen tëgg bu leen dem fenn boobu ba léegi nag vraiment xam nga na mbir mi mbiru yàlla la yàlla moom du tëj buntu tëj fenêtre wàcc rido te yàlla gémmin gu mu xar dina ci def dara lool moo tax sax ñun ñii ñu mën a tiim micro di wax mais wax dëgg fa yàlla ñun sonn nañ ba fi sonn yam sonn nañ waaw vraiment li may tàggoo mooy di leen gërëm rek di nuyu sama staff di nuyu waa euh, Africulture vraiment xam nga di nuyu staff bi nga xam ne ñoo may jàppale di nuyu monsieur le monsieur le maire Ablaye Timbo ak 16 commune d'arrondissement yi maire yi fa nekk yëpp di wax ni Timbo ñu ngi koy remercier ci bureau yi jot nañ ci wax dëgg fa yàlla équipement yi la ñuy xaar xam nga di lancer appel suñu ministre xam nga suñu ministre de la culture Ablaye Diop comprend nga mu dugal ci loxoom ñëw jàpp ci xam nga euh, société yi nekk ci banlieue bi. Hmm? ñoom tey jii ñoom ñooy suñu sponsor ñun jooyuñu sponsor mais nag na ñëw dugal seen loxo jàpp ci parce que culture mooy doxal réew xam nga te comme ñun ci banlieue lañ dëkk te banlieue bëri na ay artistes wax dëgg fa lool moo tax ma bëgg rek gars yi teg ci loxo daal.